yaa rabbi bil Mustafa seen boutique maxtabatu Tawfekh waa kër borom taayif nekk fii nag ci Touba indi leen lépp li ngeen woo nag ci ay téere ak téere boo mën a bëgg yow mi bëgg kaamilu alxuraan ak kaamil boo bëgg moo xam arab bi kaamil Baye Moustapha Lo kaamil Serigne Ahmadou wala Serigne As Guédé fii nga koy fekk loo yittewoo ci ay xasida borom Touba yi foofu nga koy fekk ak mool boo bëgg moo xam en couleur wala bokk noir et blanc dañuy it photocopie traitement de texte impressionné ay bads waaye it am nañ fi ay baylaat yu murite te moxtaare am fi it ay bay son bu ay abaaye ak ay jàllaabi yu mucc ay yamuñu foofu laafu indil na leen ay laafa original ay marakis daalli nga ay ba ci sax ay daalli turki ak parfum bépp xeetu parfum boo bëgg rek doxantul fii sa aajo faju yow mu yor buy jàng bul jaaxle lépp loo bëgg ci ay fermeture boo demee maxtabatu tawfeex waa kër borom taayif sa aajo day faju moo xam livre boo mën a bëgg arabe anglais ba ci sax français dañ jaayit ay kurus yamuñu foofu indil nañ leen nit ay njaq yu baax ci ndoxum siti emoxit dañu sax jaay la maxtabatu tawfeex waa kër borom taayif ngeen mën leen fekk Touba Madiana ci mbaar yi en face

la